hangi Power Sayman. Power Sayman. bu la kenn yàqal bu la kenn lakkal del Power Sayman. waaw waaw loo mënti nekk foo mënti nekk del Power Sayman. Power Sayman. waaw waaw yow da nga war a firi da nga war a firi da nga war a. Power Sayman. bu la kenn yàqal bu la kenn lakkal. voilà thank you very much salaamaaleykum mbokk yi xarit yi seen xabaar te sa deen dama jàpp ajjuma ngeen ànd ceeg seen baay seen maam seen najaay allaaji poobadu doom mi ci ruube gi tey nag gën ko fës ci bopp xibaar yi bokk na ci rob gi nu doon rob démb Mariem Jaañ muy xale bu jigéen ba nu rayoon foofee ca Madina Fall loole leen ci ñëw ànd ceeg suñu reporter boy séeréer ay ca kon mbokk yi bu nu jógee ci loolee ñoo nga jëm ca mbiri coronavirus ca Kolda ca Tamba daa dina fay lëmbee danañu artu it ci mbiri Karim Wade ak gouvernement bi lolé nak dër ci ñëw ci suñu reporter Bébé Aïcha. Angi ngi poobar say nen. poobar say nen. bu la kenn bu la del ay ca gaay loole nag gannaaw ci xibaar ci tënk dañu koy njëkkee ci yaatal ci mbir rob bi nga xam ne nu ngi ko doon rob Mariam Diagne foofee ca taaxi kaw rob ba nag lanu ca wax ak lanu gàll ca deru Mariam Diagne boobee den ci ñoo ànd ceeg suñu reporter booy séeréer inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun rob ba démb am na de Mariam Diagne ma ñu faatoon daal rob nañ ko dem dem daal lañ jeñ xale bu jigéen ba de waaye nag Mariam Diagne day gaayee ko wax de nee nañu dafa tegale woon ñaari góor kenn ka di keneen ka ca des di ab coroom gaayee ko wax de ndax nag jëkkër ja cheikh la tudd sant fay jëkkër ja daal ab séeréer la ab séeréer bu garaaw a garaaw la ndaxte nag baayu jëkkër ja mooy général waali fay général waali fay mi ñi coow ci àdduna wërngal këpp mooy baayu jëkkëru ndaw sii de mooy baayu jëkkëru marem de cheikh fay nag moom dem dafa porté waat plainte ki nga xamante ni nii mooy Assane Gueye dafa porté waat plainte ndaxte nag sukkandiku na ci baayam de baayam ba général euh, waali fay day ci moom la sukkandiku ba tax na mu porté plainte jëkkër ja nag ma nga tolloon ci juróom benn fukki at ak juróom benn waaye far wa ko rey day ma nga tolloon fanweeri at ak juróom benn xam nga lan la gaa yi wax nee nañu moom moomu day Assane Gueye mës naa dugg kaso de mës naa dugg kaso ndaxte xale bi sàcc la woon de tëjoon nañ ko ca 2014 2014 dal la sàccoon ab ordinateur ordinateur portable la sàccoon ñu tëj ko léegi nag ñëw na rey na Marème Diagne ñu tëj ko waaye nag ñeneen ñi nee nañu xale bu góor bi dafa dafa toñar bi de ndax dañ koo tooñ jaay ko doole lekk alalam ba pare bu ko léegi nag putu jàpp xale bu jigéen ba dóob koy paaka ba mok rumbu xam nga mbir bu amee ci réew ku nekk ak li ngay wax waaye daal jàpp leen ni Marème Diagne moom rob nañ ko dem jëkkëram jooju nag xamante ni moom mooy doomi général Waly fay di seex fay moom nag porté na plainte léegi nag mbir maa ngi noonu na yoon ate gaa yi tëj ki ñuy tëj booy séeréer la woon ci Best FM voilà booy séeréer jaajëfal ko bu baax ci loolee coowal a ah, rob bi nga xam ne jenc nañ ko démb kooku di Marème Diagne a ah, jëkkër ja nag di Cheikh Faye Faye bi na penda waagaan doom ci général Waly Faye moom momé porter plainte koku di Assane Gueye Assane Gueye nak tollu ci fanweeri at ak juróom benn waaye jëkkër ja tollu ci juróom benn fukki at ak juróom benn loolee nak mbokk yi bu nu ci jógee ñoo nga jëm nak ca coowal coronavirus ak Karim Wade loolee de ci ñëwaand ci suñu reporter Bébé Aïcha asalaamaaleykum waay kees kaay nuyoo dinaa leen toto fawar Tato fawar maa ngi lay nuyu toto fawar daal waa Kolda daal ñoo daw Kolda ña nga yuuxu ndax dégg nañ ni coronavirus baa nga fa maa wax lu di wel coronavirus ba dugg kol de ay wai subuh kul ma la tubaab waaye yal nan de ci lakk xorom te doo fa français yal na bombe atomique tak sen kaw ñu dee wai wai fa war waay waay français yee ñu nenn waay kaa ba ca ndakaaru njaay yaf ca sax la di wax ab tubaaba ko fi andi ab fran ay français ko fi andi woon de te wai fa war waaye tamit benn français dem foofee ca kolda français ba daal feebar fa gaa ni coronavirus la yóbbu nañ ko ca institut pasteur bu ndakaaru de ndax ñu mën koo saytu de wai wai tamba gàddu seni ëmb ak seeni debus ne dañuy daw tamba xam ko waral ab tubaab la fa fatu ca Tamba mala wax lu ni mel de tubab ba dal da fatu gay yi ne coronavirus be ko rey waaye te doo foobar mbiri coronavirus ak mbiri bajantu kay wu senegal ño am gatché ay way Macky Sall ki nitam am nañu gatché way ndekete Macky Sall day bu suker suukar nade na de mala wax lu ni mel Macky Sall dal bu don dojub kriñ togn na toto foobar maa mala ko wax Macky Sall la top Karim wad rek ne fu mu jaar dina ko tej barki ñom yonent bi way na xolal xam nga ñom dañ ko doon yu 20 milliards waye 20 milliards ya wul de toto foobar xam nga na leen Karim wad defa Karim wad dal da won ne len man ak tubab ye far gaay dañ ko jëk wo ca pari Karim wad gañé len fa ñu wat ko pari Karim wad gañé len ñu wo ko ca cdao Karim wad defati len ko way ta do fa war magi Sall ne duma ma de daa di koy wo ca groupe de travail bu Nations Unies way Karim wad defati ko ko Macky Sall nak tok yenu loxoy bam neex ko daa di koy wo ca Monaco Monaco dal la ko moy wo bu mujju bi Karim wad defati ko ko ya dal dano woné seenu and ak Karim wad mala wax lu ni mel de ñom dal nenañu nguru senegal dal ñom dal li len jaaxal moy incroyable véritable injustice bi am ci Sénégal loolu daal la ñu tubaab yi xasee a wax nan nu xasee de nu garde laa la ndax xam nga lan mooy incroyable injustice mooy justice boo xamante ni daa bootu ci ginnaaw président lu leen xam naa bu doon suukar say de nag toto foobar Macky moom dong rusul de avocat yi nga xamante ni ñoom nga France avocat yaa rus rus bay wër am coronavirus ngir mu wal leen ndax ñu dé baña ñu bisi maa la wax lu ni mel waye xolal avocat wu Karim wadi bi ñuy ñëwaat aéroport lañu commencé di tàcc di tàccoo ko yu xudi similé xam nga la la doon way fekk si leen door leen lolu jaawna na bébé Aïssa la woon ci best FM waw kay bébé Aïssa jaajeufal ko bu baax lolé nek nak li nga xamanteni ni nek na mbiri coronavirus ah, coronavirus bi nak fofé ca Kolda ak ca Tamba mu daadi di fay lembé waye it mbiri Karim Wade nga xamanteni ni sonal na gouvernement bu Sénégal rawatina Macky Sall yóbbu na ko ci Paris ngir tëjlu ko mënu koo tëj Karim Wade gañe ko mu delloo ko ca Paris am fa gàccee yóbbu ko ca CEDEAO am fa gàccee dellu yóbbu ko ca group de travail bu Nations Unies am fa gàccee yóbbu ko Monaco am fa gàccee tubaab bi mujj koo xas ne ko incroyable justice loolee doon gàcce ci réew mi mbokk yi lii nekkoon seen xabaar te tëddee na ma laal tine jàpp àjjuma ci Best FM ngeen ànd ceeg seen baay seen maam seen najaay alaaji poobarub doom mi ci duube ki te di poobar say <laughs> nen poobar say bu la kenn yàqal bu la kenn lakkal del poobar say nen waaw waaw loo mënti nekk foo mënti nekk del poobar say nen poobar say nen waaw waaw yow da nga war a firi da nga war a firi da